Tout à fait. Vous parlez de policiers à la tête du pays. Euh, je pense que vous faites allusion au président Macky Sall. Mhm. Il faut rappeler aussi yow bokk nga ci koo xam ne am nga chance duggoon ci gouvernement kii di président Macky Sall. Mhm. Euh, ndaxte euh, kii di Cheikh Bamba Dièye si je ne me trompe pas. moo la indi woon ngir rek nga xelal ko ci lépp rek loo xam ne woon nekk na technique de gestion ak planification ak yooyu noonu noonu. ci benn interview boo accordé yaa ngi xam ne ne le président plan yoonu yokkute bi nga xam ne moom la jaayoon les sénégali mhm. ba mu accéder au pouvoir da ko teg fee di wër benn benn plan mhm. donc mu mel ni comme pilotage à vue la kii di président Macky Sall mhm. yore woon dëkk bi euh, pendant deux ans est-ce que vous euh, mun nga ñoo expliquer xam nga ce qui se passe dans ce pays c'est que homme politique yi souvent parce que là c'est une catastrophe yoonu yokkute c'est de la littérature politique ce n'est pas un plan où on une vision claire avec des objectifs spécifiques mhm. am ay programme programme boo ubbi fekk fa ay projet projet boo ubbi fekk fa benn matrice des actions avec des cibles et des montants définis ce n'était pas ça yoonu yokkute yoonu yokkute c'était de la littérature politique bi ñu ko andee pendant un an kenn mënta financer de la littérature on finance une vision on finance des objectifs on finance des programmes on finance des actions on finance des cibles loolu mooy planification ak mais dañu ñëw andi ñu littérature politique ñun les conseillers techniques yépp nga xamante ne on avait la responsabilité de la planification budgétaire politique sectorielle la stratégie sur vingt cinq ans ñun ñi ñun ñëpp kenn personne ne pouvait décliner li nekk ci yoonu yokkute en en en politique sectorielle. neuf mois après on nous a demandé que ne léegi il faut que ñu andi SNDS. Mhm. parce que fekk na fi ñëpp. SNDS mhm. pour te dire. directeur de cabinet yi ak ct e yi chaque ministère ñoo toog bind dajale jox ñu compiler génne benn document mhm. est-ce que tu penses que quarante ministres avec leur directeur et leurs conseillers bu ñu dajaloowee quarante points de vue bokkul dajale ko ci benn document document boobu dina am vision bu mhm. am objectif yu défini non ce n'est pas euh, c'est vrai que dans la planification c'est bien de prendre en compte ce qui se passe à la base mhm. mais vision bi moo am solo objectif yi plan yi ak programme SNDS dafa ñëw partenaires techniques technique financiers yi ñoom ñoo wax ne ñu leen accompagner ci SNDS donc ñu dawal encore six mois président dem jënd plan Sénégal émergent à deux milliards plan Sénégal émergent ki bind bi rek dafa juum ci ni binde vision kenn du bindee vision noonu waxuma la nag li ci des plan Sénégal émergent comme étranger yee ko defar des citoyens qui l'ont fait les étrangers ont orienté pour cent du plan d'investissement prioritaire dans des secteurs où les Sénégalais n'étaient pas ah eh, secteur tertiaire secteur yi nga xam ne sénégalais yi newuñ fa normalement plan de développement sénégalais dëgg dafa war a concentrer daanaka cinquante soixante dix pour cent du budget dans les secteurs l'agriculture élevage pêche ak transformation des produits agricoles dans comment suuf si fi nekk naka la ñu war a amee des industries et des fleurons bi moom la nar a ànd ak euh, jusqu'à l'horizon 2035 bu ñu sukkandikoo ba plan Sénégal émergent ñëpp gis nañ li mu créé ci réew mi deux milliards de francs CFA yu partir en fumée en fumée mais le pire c'est juste que en fait chaque année mu dépensé milliards cinq faites le calcul on parle de vingt et un milliards qu'on a vingt et un mille milliards qu'on a dépensé dans ce pays en neuf mois lan moo changé entre et si loolu laal bëgg a ñëw par rapport ak plan Sénégal émergent yaa ngi naan tubaab bi ñoo ñu ko defaral 2 milliards de francs CFA la ñu ko jaaye mhm. mu nekk benn plan boo xam ne euh, amulul benn njëriñ euh, Sénégal yi parce que répercuté wut euh, si panier de la ménagère ni ça si vécu quotidien des Sénégalais. Mhm. tey jii nii. économiquement parlant Sénégal ñëpp xam ne carrément dafa normelu mhm. est-ce que plan Sénégal bi aussi du contribuer à ce que cette économie di gën a agenouer est-ce que le Sénégal peut supporter ce plan non seulement ce plan est essentiellement basé sur de l'emprunt c'est-à-dire que plan Sénégal émergent tey boo xoolee portion bi mhm. dangay gis ne emprunt moo ko gën a financé mhm. te emprunt c'est bien d'emprunter mais quand tu empruntes xamal ne y a ce qu'on de levier jël nga xaalis dem nga leb xaalis mais xaalis boobu ñu la lebal c'est parce que am na xaalis bu nekk sa poche bu banquier bi soxla mhm. mooy ce qu'on appelle les fonds propres ce de la douane mhm. impôts yi ngay dagg entreprise yi salaire xaalis bi ngay dagg salaire yi liquidité boobu moom la banquier bi teg bëtam quand il te donne des milliards mi ngi augmenter ce remboursement trimestriel de la dette hmm. te Macky Sall dafa loolu moo andi tension trésorerie 2014 dañ ñëw Amadou Ba dugal ci loi bi ce qu'on appelle euh, euh, les offres spontanées ce qui permettait de pouvoir financer des projets à coût de cinquante milliards cinquante milliards ñuy def des projets à coût de milliards les offres spontanées sont une catastrophe parce que c'est un contournement du processus d'appel d'offres il y a des gens qui ont eu des projets à coût de cinquante milliards yu teguwul ci dara comme ça que ne xaalis bi ñu leb yëpp noonu lañ en 2015 2016 2017 wax li ngeen def conséquence mooy vous allez être en tension de trésorerie bés bu ngeen fayee salaire fay fonctionnement ba noppi fay maintenant li ngeen yoreel banques yi nga xam ne dafa jóge ci 300 milliards en 2012 dem ci 700 800 milliards en 2017 2018 dootu leen yor dërëm bi ma ko waxee en 2017 ñu bëri dañ ma weddi 6 mois lañ ci teg FMI obligé Amadou Ba à reconnaître que ne le Sénégal est en tension de trésorerie mooy maanaam kees gi xaalis bu liquide amatu fi. donc su ma la déggee. Mhm. plan Sénégal au lieu mu émerger la ñu. daf ñuy gën a enfoncer dans la pauvreté. dans la pauvreté parce que liquidité bi muy jël c'est-à-dire que dette bi mu augmenter te investissement yi jurul dara dama lay jox un exemple. Mhm. TER bi injecté nañ ci mille à mille cinq cent milliards. Mhm. ça fait trois ans ñu def investissement bi investissement boobu rajouté wul dara zéro franc encaissé par TER bi depuis que ñu pare ko ba léegi mi ngi taxaw ça veut dire que investissement la nga xam ne dette lañ ko investir. dette boobu dañu dem trésor français moo ñu lebal xaalis banque africaine de développement ak l'état du Sénégal ñu dajale benn montant jël ko jox ko entreprise étrangère Alstom moom moo ko créé indi ko livré ñu ko ba noppi bu ñu paree c'est une société française qui va venir gérer quoi parce que technologie bi mënuñ koo gérer donc on est en train de financer les entreprises étrangères et pendant qu'on finance les économies étrangères suñu budget day rentrer en tension trésorerie parce que bor pour ñu fay ko foog ñu dem jël ci dépense sociale dem ci xaalis bi doon des nga xam ne boo fayee salaire fay fonctionnement mu at mu am lu tuuti des nga mën ci gérer problème yi loolu moo loolu l dette bi ñëw jël moo ñu nekk en tension trésorerie et pendant gis nga en 2001 le budget le la douane mooy li nga xam ne xaalis bu ñuy jëlee ci produit yi dugg suñu économie représenté environ vingt pour cent du budget actuellement c' est à trente cinq cent ça veut dire que ne léegi réew mi produit étrangers yi ñooy gën di dugg mais sénégalais yi ils produit moins lii mooy preuve bi gën a irréfutable ci le fait que sénégalais yi produire tuñu suffisamment pour que xaalis bi di des ci réew mi il faut que produits étrangers yi di dugg et j'ai vu le ministre de l'économie et des finances di di bàkku parce que douane bi dafa yokk quand douane buy augmenter aux frontières mhm. mooy ça veut dire volume produit étranger yi ñu ngi dugg c'est ça que ça dire économiquement mhm. donc boo gàttee xel amoo vision bu sori da nga naan sama budget yokku na bu ma doon am douane 700 milliards léegi may am 1000 milliards donc sama douane yokku na 300 milliards mais économiquement ce que ça dire mooy le produit intérieur brut dafa dellu ginnaaw sénégalais ils ne produisent plus il moins de produits qui se produisent dans ce dem di ko jëli en même temps bu produit duggee ci biir réew xaalis génn na donc autosuffisance yi nga xam ne président Macky Sall mu ñu koy jaay rawatina sa si wàllum ceeb beeg nga xam ne fu mu toll ni oignon bi aussi ñu ngi ko siy seetlu. xar bi nag euh, euh, euh, xaru xaru tabaski rek 25 pour cent xar yi ñu rey c' est l' économie sous régionale moo ñu ko jox. on n'est même pas capable après 10 ans de plan Sénégal émergent on n'est même pas capable de faire de la viande sénégalaise benn marque bu am solo amuñu ko c'est-à-dire que ñun tabaski bu jotee il faut que Mali Mauritanie jox ñu 25 pour cent de donc kon euh, <laughs> monsieur Fofana man la man la dama tellement que euh, ce que vous dites c'est scandaleux kon président Macky Sall lu muy wër euh, si réew tubaab yëpp di ñaan à ce que ñu éponger ko dette bii nii mhm. buñ ko deful nous on est mal barré mais situation bi actuellement c'est ça aujourd'hui réew bi dafa nekk en tension tension trésorerie bu métti lañ nekk on n'arrive pas en plus le pire le, gros problème dans ce pays entreprise yi koo parce que fii état moo fi nekk le principal consommateur. mais le pire dans tout ça euh, mu ngi continuer di leb parce que. Euh, y a de cela deux benn eurobond de 700 milliards de francs CFA. c'est ça mais 700 milliards yooyu dafay ñëw augmenter de la dette pon moment bi muy augmenter service de la dette est-ce que salaire yi yokku na. est-ce que bénéfice yi yokku na donc impôt sur les salaires et les bénéfices et les transactions est-ce que yokku na non li yokk mooy douane bi produit yi di gën a dugg donc l'économie boo defee analyse rek da nga xam ne. ñoom option bi ñu jël mooy nañu endetté sénégalais def des infrastructures à gauche à droite mais loolu mais infrastructure déjà boo ko réfléchirul bu baax TER bi fi ko def ban impact la am sur l'économie xam nga boo defoon train train bu simple waxuma ay TER parce que TER dañ ko réyal train express régional donc là c'est une offre commerciale mm-hmm. dans la loi de la décentralisation française bi ñu jëlee les régions def leen les chefs de file de l'économie les régions ont demandé à SNCF que ne ñu bëgg pour le développement régional qu'il y ait des lignes de train qui quittent de région à région et que c'est des lignes express looloo andi train express régional de région à région ce n'est rien d'exceptionnel train dong la donc bu ñu tey bu ñu investir sur comme France am réseau ferré du Sénégal am des usines yu nga xam ne mën nañu monter ay wagons euh, l'histoire des États-Unis boo ko jàngee xam ne train moo conquérir l'Est mm-hmm. train ñëpp ko maîtriser. Mhm. donc tey créer ay ay ay chantier yu nga xam ne dañuy defar ay train modèle africain na daw cent trente kilomètres heure deux cent kilomètres heure ça nous suffit ñu rallier les grands pôles régionaux su ko defee nit ñi mën di circuler ma marchandise yi mën di circuler économie bi gën di danse su ko defee xaalis mën a circuler te looloo économie l'économie c'est juste les transactions moo tax les nouvelles technologies bu ñu duggee dans le système bancaire léegi dépenser xaalis dafa gaaw Tant qu'une économie, quand l'argent bouge, ça veut dire que les hommes bougent, ça veut dire que les biens bougent, ça veut dire que la richesse se Mais bu fekkente ne réew mi boo pour nga jugee Kër Massar ñëw fii il te faut deux heures de temps mais imagine léegi bu dee marchandise moo ñëw na. mais peut-être euh, avec annonce bi nga xam ne le ministre Mansour Faye def na ko di xam le ne terre bi dina daw au mois de décembre euh, manque à gagner boobu est yaakaar nga ni dinañ ko mën que trois ans. en économie on ne rattrape pas certains <laughs> certains am na déjà TR bi moom analyse économique gu TR amut c'est-à-dire que ne TR bu ko kenn jéem a dugal ci schéma économique ku xam l'économie des territoires Cap-Vert ak Kayor Cap-Vert ak Thiès ko ku xam l'économie particularité économie mhm. enjeux yi ñu am xam ne TR bi ne rentre dans dans aucun schéma de développement territorial bu cohérent sa mhm. ne rentre dans aucun TR bi fan la ñu yóbbu du aéroport mhm. axe boobu boobu ku wàcc man barki dem ma wàccee jógee aéroport damay jël TR du ma jël train nañu waxante dëgg fan la économie bi nekk foofu la ñu war a orienter les investissements en transport fan la activité bi nekk euh, kon su ma la déggee euh, euh, monsieur Fofana kon président de la république Macky Sall ak i gouvernement non seulement bàyyi na benn planificateur bu mel ni yow écarté ko parce que vous n'avez pas trouvé les moyens nécessaires euh, pour travailler avec le président Macky Sall parce que politique bi moo ci moo moo moo ci ëpp solo mhm. mais finalement orienté wul sax sénégalais yi vers l'émergence donc tey jii nii pour récapituler pour faire